Sunugal 24 point net l'information à sa juste man maa ngi tudd Pape Diop ñu gën maa xam ci président OIA mais ci li nga xam ne moom laay yëngu di ci liggéey ba agsi fi ma toll ci laa def sama ngone ba aksi fii mooy li am léegi yàq moo ci bari yàq bi mooy gare routière bii dañoo jële pompe indi ñu fii ci gare routière bii ci lañu waxoon dara amu ci ñu yoo jóge fi client du duñ ñëw fii di taxaw ci mbedd mi ay oto di leen jël di leen yóbbu loolu nekkul dëgg te am na ñu leen boot te ñu nekkuñ ci yoon ñi xam ñoo wax ba dugal ñu fi tam nekkuñ ci yoon garage bu ubbee client ñoo war a jóge fu ñu nekk dugg si ci garage bi oto yi dem du dëgg mais daw ay ay kii bi ni ñu koy waxee saxati couvre-feu bi ñoom ñoom moom seen bopp bu leen neexee ñu def ko daay man bu leen neexee ñu dindi ko mais ñun fii ku yàq lu fi am ndax client bi rek lañuy xaar bu client bi ñeen yóbbu ñun amuñu bu ñuy xëy à l'heure di wàcc à l'heure amuñu soxla ci yàq amuñu soxla ci def lu ñaaw waaw mais daal li nga xam ne mooy defa transport bi mooy nañ jël matuwaay ñoom ñoo yor ñoom gouvernement bi ñoo yor matuwaay yi gendarme yeeg alkaati nañ taxaw ci yoon wi wax client yi ñu ñëw ci biir garage bi oto yi dem liggéey comme oto bu amul pièce ñu fay loola. oto ba amul assurance ñu jàpp la oto ba amul usine ñu jàpp la mais nañ dem wax client yi ñu indi leen ci garage bi oto yi dem mais bàyyi client yi nañ fële ñu leen ñuy taxaw ci mbedd mi te oto yi garage bi ne fii taxaw fii oto yi amul ñu liggéey loolu di yoon te ñoom ñoo ko jël en charge parce que ñoom bi bëggee def lu leen neex la ñoo jël li dañuy def combiné ay li ñuy liggéey ñu toog ñetti weer liggéey ñu xëy ñu gont ñu te ñu ngi yor suñu yi suñu yor lu ñuy liggéey suñu kër yi est ce que ñooñu jox fu ñu yor ceeb bi ñu wax diwlin gisuñu ko est ce que daan ci jot dañuy duul ñun suñ dara yaa ngi dégg ñun suñ tous te yaakaaruñ leen trois mois ñu ngi yor toog yor suñ jël yaa ngi dégg di muñ di seet ay moyens ñuy demee ay nit ñu baax la ñuy dimbalee état bi moo ko def état bi su defee loolu la nga xam ne mooy jëriñ garage bi na ko def dem ca yoon wa alkaati yi moo leen moom moom sandram mais leen alkaati ak sandram ñu ñëw leen indi client ñu dugg ci garage bi ah ah mais tey client fee ci taliba gaar bi di dox fii amuñ lu ñuy yëpp amul client amuñ lu ñuy liggéey oto amuñ lu ñuy liggéey loolu teguñ ko fenn. waaw man man maa ngi tudd falu Diop di chauffeur fii di doomu maraîcher Dakar Fouta Dakar Casamance Dakar Kédougou aussi. waaw changement moom ñu ko rafetul moom ñu ko rafetul loolu loolu sax macha allah waaw parce que itam vraiment sonoon nañu trop dañoo sonn dañoo sonn ba jéggi daayoo. waaw dafa mel ni comme li ma waxoon fii léegi rek nit ki ngeen ne ko tëj nañ la kaso deux tëdd la nga tëdd un an soit nga tëdd six mois ñu ne gënal la may la peine yi des loolu la ñu defal tey jii mu daa mel ni man bokk day mel na six mois mu des six un an six mois ñu ma un an may ni la ko demel mooy lii tey jii parce que dañoo sonn chauffeur si dañoo sonn amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu ñu naan dèjà chauffeur yi ne ci dëkk Ali sax ñoo gën a métti sax noo na ci dëkk yoo xam ne affaire fekk leen ko li ñu yor dañ ko lek bu mu jeex tàkk amatu ku leen jox dërëm il fallait que ngoon gu jot dañu yor seen bool dugg ci kër ji yelwaan surtout ku ne xam dëkk àll yi ni ñoom tànnuñu chauffeur yi sax boo leen may lu lekk dañuy yelwaan taxaw ci dóor di yelwaan ku taxaw ci dóor di yelwaan oto bu daw nooy yelwaane ah, dem naa fu dëkk boo xam si bërki dem ma am location koor sama oto bii mu ne fekk ay chauffeur tim bool wallaay bool bi ñu tim kenn ku ne benn tubu nga jël jóg ci lekk boo xam si ne tey ji bu ñu ko doon dañ dem bu bu ñu desalee bool ba chauffeur jël jaajële rek à cause daan amatuñu lu ñu lekk ndax sonn. maanaam suñu déggee bu baax li nga wax daal jotoo leen benn ndimbal bu jógee ci état bi comme ni leen ko diggee woon. soxna si déggoo ma kana du saako ceeb du kilo sukkur du dërëm bu ñu état jox ñun état na moom xamuñu ñu ko def noo gis nga par exemple virus bi mu amee waa déglu virus bi mu amee ba joni tey jii xam nga trois mois am ku ne xam ne auto transport dawagul boobu léegi ah déggu leen tam yi xam nga ne ci dara yi ni média yi nga ne yor déggu leen tam ni am na ku ko am ci dëkk sàngam auto transport yéegoon mu ko fa ah. oto yi ko yóbbu oto clandestin yi ko yóbbu oto trafic yi yi bokku ñu ñun ak jakarta yi ñoo koy yóbbu ci dëkk yi ñu trois mois ngi kenn ku ne fi nga garé sa loxo nga ko garé ba jonu tey ji bu ñu ne ñu rek la virus du am kon ku ne xam ne sofóor na moom doole leen demee suñu ñànkaar oto yi nii yor ni bu ñu demee def aller bu ñu am si ñaar junni doylu ko soxla ñu état dara mosu ñu état may ñu nangam mu ñu ne saraxal ñu nangam mosu am lu ñu am doylu ko état nag xamuñ lu ñu ko def waaw nit ñi na doole yemut surtout ministre bi ni mu waxee na ko bàyyi su ministre bi man damay jàppee ne kooku matu ministre man mënut a ay sowoo ndax bi rek dem bi ñu déclaré suñu grève dafa ne ñu amuñu njiit loolu jëkk wax non syndicat bi assemblée yi laa bokk bu góor mu bokk ma ci mais ñoom ñaar ñoo déclaré grève de mais ñoom parce que dañoo déclaré loo xam si ñëpp a loo xam si ci moom la jëmoon rek du ma ànd ak moom dañoo xamante dëgg assemblée tamit même chose mais dañoo déclaré loo xam si ñun ñëpp a ko bokk waaw intéressé nag pour chauffeur yi mën seen activité mën a gis seen bopp est-ce que seen syndicat yi am na jéego yu ñu def pour jéem a xool waxtaan ak état ñu dimbale leen ci ñetti weer yi nga xam ne galère ngeen ko waaw wala déet. ah waaw mais ñu ngi leen déglu boo xam ne parce que tey jii état bi dafa ne tey fii 17 heures dañuy waxtaan ak seen syndicat ñoom xamuñ li ñuy waxtaan ak ñoom mais ñu bu ñu sañoon danañ ñu jàppale bu ñu jàppale tamit ñu demee suñu bopp rek garaawut ndax tey jii yi bëri dañoo panne ñii dama panne batterie ñii dama panne pneu raawut na biis xam nga taxaw 3 mois takkoo da nga panne batterie ñii visite ak ni mu ñu ne danañ ko jël en charge moom visite bi ba garaawul waaw oto yi bëri dama pan dañoo gaale état moom lu mu def moom ñoom moom lañ déglu daal. waaw Alaaji Fay laa tudd waaw. yow chauffeur nga. waaw chauffeur la waaw. ban axe ngay daw. waaw naa daw Dakar Ziguinchor damay wër daal Sénégal wax dëgg yàlla mais li ëpp Dakar Ziguinchor Dakar Diaobé waaw Dakar Tamba waaw. waaw li ma ci xalaat mooy euh, ñun sant nañ yàlla ci loolu mais nag li ciy bañ mooy mu am élèves yi essayé woon na jël ay motuwaayam toon ni mu waxee noonu ne ñaari daaru ceer ñoo fi am na jël ay motuwaayam ci ñaari daaru ceer yooyu clandestin bañ a am parce que bu clandestin amee ëllëg ñu tooy jiñ ñu tooy jiñ lu neex bu jëlee ay motuwaayam fii te fii dem mu jël adresse am ak numéro am ak numéro téléphone am chauffeur bu départ ñu xam fan la départ ñun loolu moo ñu gënal mais waxul ne ubbi na garage bi rek bàyyi ñu bu ëllëg amee mun ne ñun chauffeur yi la boobaa luñ loolu boobu ubbitoon taxul ñuy wax. li ñu bëgg mooy tam moom mooy mooy ministre bi na ci jël ay matuwaayam ñaari jaaru ceer la wax ci ndakaaru na respecté ñaari jaaru ceer yooyu képp ku talentiste ñu teel a la ne yow yaay talentiste alamaan la ñun nañu doon loolu waaw. nan ngeen dundee ñetti weer yi nga xam ne toog ngeen ko daanaka liggéeyoo leen am ci ñenn ñoo xam ne ci yéen nee nañ jotuñu ndimbal. waaw metti na trop métti na trop ndimbali moom suñuy mboot ñoo ñu dimbali suñuy mboot ñoo ñu dimbali ak ndimbalal suñu borom mais état moom amul benn ndimbal bu ñu defal defalul benn ndimbal yàlla dimbali suturaal na nañ fekkewaat nañ ko si jàmm amul benn problème mais métti woon na trop suñu njaboot ak ñun parce que suy dundal njaboot day dépassé 4000 wala 5000 par jour ñu toog la 3 mois loolu ñaata la ci xaalis 3 mois nga toog liggéeyoo toog dafa métti mais ndimbal moom suñu ci dërëm te li suñu li suñu sandital si wax ànd naa ci ndimbali moom bu dee ay 5000 6000 la ko jël dimbalee ko boppam wala mu taxawul ni ko pour feebar bi taxawul ci ñun nga xam ne dinañ mën a protéger moom feebar bi rek te raxasoo lépp raxasu bi sax am na parce que fi ñu toll nii tey boo départ jëm Mbuur bala ngaa indi Mbuur di nga raxasu ñeenti yoon dëkk yëpp def nañ ay raxasu ñun suñ euh, fooy jëlee bon wala fooy taxaw pour gendarme wala policier am na fooy raxasoo ñun am nañ fu ñuy raxasoo dina jàppale ñooñu ñu am ay ordre ay raxasu ci xaalis bi ñu joxoon ñun may nañ ko pour loolu waaw. léegi yow est-ce que xalaat nga ne couvre-feu bi nga xam ne ni yokk nañ ko ba 23h maanaam 23h bu ñu nee oto dootul daw nit dootul dox ci mbedd mi. est-ce que xalaat nga ne yéen chauffeur yi di ngeen respecté boobu couvre-feu ba nga xam ne nii 23h bu jotee ba 5h du matin di ngeen fexe ba gaare seen oto yi respecté couvre-feu waaw loolu dina xaw a doy waar ci Sénégalais yi dina xaw a doy waar trop parce que li tax muy doy waar nga toog fii départ fii 20h war a jëm Tamba wala nga départ fi 18h war a dem Tamba xam nga mën nga départ fii tamit une war a dem Tamba nga dem ba Kaffrine nga paan war a tontu ne yi noo leen def dina métti. mais métti bi tamit bu ñu xoolee ne ci sévérité te lay métti ci ci laa lay gën a métti parce que oto mënoo cee yendu fanaan ci oto bu ñu enregistré pour man oto bu ñu enregistré nga ñu xool ne dafa amoon paan ci yow barrage si couvre-feu bi laa mën a bàyyi nga jàll parce que doxewoo say soxla ay client day yóbbu ñibbi lii bi mooy mën na ne vingt heures oto bu génn fii vingt heures am téet barrage boo dem war na laa mën a bàyyi nga jàll parce que affaire yi organisation la laaj parce que nit ki dootu bàyyi ci àll bi ci mbedd mi mu fay fanaan ci biir oto yi mun a nekk te nit ñi dañuy am ay soxla oto moom day daw rek yàlla moo xam ndax ajam ban heure lay aj ak ban heure lay arrivé loolu da am solo tey ñu suuraale waaw ñoo ngi rafetlu lu décision bi nga xam te ni ministre bi jël na ko parce que vraiment métti woon na ci ñun trop ndax ñun ñu téye depuis boobu ba léegi trois mois ñu ngi ko toog bon liggéeyuñu ah bu demee ba yoola mal am nag ci diggante liggéey ak ñoo koy sante ay di ko xam nag nag ñu sonnoon la nag parce que boobu léegi ñu ngi toog xamuñu lu nekke te ñun dimbal moom ñuy wax ci ci état ñun dañ koy dégg rek mais gis gisuñu ci dara waaw wax la rek ci ay chiffres ba bañ na ko ba fu ñu dëkk sax ñun bu demee dañuy laaj ñu ne ah yéen sabode yi ñu ngi leen dimbali te ñun loolu yàlla xam gis gisuñu ci dara waaw ñu ngi dundee su ñu ngi muñ ah di jàpp bu ne yombal kon nag ba ne 11h ah c'est baax na baax na parce que ku def ba 11h xëy na mën nga gaare dina tane waaye de ba 5 di du matin waaw loolu a ah, xëy na bu ñu ko respecté te ñu jël mesures yi nga xam ne war nañ ko jël parce que tamit bëggu ñun tamit bëgg nañu liggéey ko mais bëgg na lor askan wi waaw bëgg nañu liggéey mais bëgg nañu lor askan bëgg nañu tamit feebar bi ku ne xam ne ne am na mais nag buñ ci ciblé benn secteur rek bëgg ko cee gàllankoor waaw parce que comme nu nu ubbee jàkka yi ubbi ko yëpp dana war waroon ubbi depuis yàgg na ñoo ubbi ndax ay famille lañ yor yor ay njaboot yor ay ay ay doom jàng yor ay jabar ak i doom kon nag war na war a boole ci nit ñi trois mois yoo nga xam ni sëfoor yaa ngi nii bu nu lekkee dañ koo dañ leen ko dimb dañ leen dimbali te benn ministre bu ñu ci toogoon tey ji un mois faynu la nga génn wax keneen ku ci liggéeyoon toog un mois faynu la nga wax ñu nag toog nañ trois yoo xam ne kenn fekkunu fi kenn dimbaliwunu ñu toog nag waaye situation yi métti waaw waaw nag man sëfoor laa waaw man maa ngi daw Ziguinchor depuis trois mois sama oto sax mu ma bàyyi jigéen sol gaare ko fa falaa ko gaare ca gaaras ba tëj ko fa ñëw toog fii dakaar sama kër métti ñu ngi dund dund métti mais nag ñoo ngi koy sant yàlla ñoo koy sant yàlla waaye li nu amoon lépp jeex na te fi ne bu nu àggee suñu oto yi yëpp pan nañu parce que pan nga batterie oto bu gaare trois mois batterie ba yàqu na leneen la pan nga assurance ba jeex na visite ba jeex na loolu lépp mi ngi dogg sa sa mbagg nga war koo defaraat kon ñun ñoom ku a sonn ñun ñoo gën a sonn affaire bi ñun ñun la gën a sonn ci ñun ñun la gën a métti ci ñun waaw Massiré moom nañ ko gisee moom mooy di sant liñ jël rek parce que affaire bi métti woon na trop ay magum jéem a toog trois mois joxoo leen seeti woo leen laajoo leen ci lu ngeen nekk ñu toog di muñ trois mois dafa métti ci borom kër nga yor lu mot ñeenti doom wala juróomi doom wala nga yor ñetti jabar di leen dundal xam nga loolu dafa mett loolu lépp ñu toog muñ ko ñuy du tudd ay nit toujours te duñu tudd dañuy gis suñu bopp moo taxoon ñun tam ñu jóg commencé dox dox ñaxtu dox ñaxtu boobu nag moo jur li moo tax ñu may ñu lii tey parce que ñoom yàgg nañoo wax mais kenn faale wuñ affaire dafa métti dafa métti am na ñoo xam ne ndimbal yi gisuñu dara man de gisuma dara man gisuma dara gisuma sama mbokk mu de am na ñu may woo ba Kolda sax di laaj ndax gis nga wala gisoo. te man gisuma dara gisuma ceeb gisuma xaalis dégguma sax ku koy wax loolu xam nga dafa métti ci ci magum ay magum jéem loolu dafa métti. léegi nee nañ euh, bés ni ki tey daal mën ngeen di daw waaye 23h ba 5 du matin couvre-feu maanaam dootoo leen dawati lan nga xalaat ci loolu est-ce que xalaat nga ne yéen ñëpp di ngeen man koo respecté mesure yooyu wala wala déet. man de li ma xalaat mooy man mën naa koo def ndax fu ma dawee ba sonn sax même bu dul couvre-feu damay gaare man su ma dawee ba sonn damay droite ba ma nopp lu ma doog a jóg fu ma daw ba 11h jot damay gaare bu ma wóoree ne bu ma yebee 11h daf may fekk ci yoon wi sax man du ma yeb damay xaar ba bët set ma yeb ndax dara jaru yàkkamti waaw te lu lu mu laaj rek dinaa ko def man moom passe partout damay daw Kolda daw Ziguinchor damay daw Tamba damay daw Bakel fépp laay daw man heure bi yëpp dama koy respecté dama koy respecté man couvre-feu 88 fekk na ma fi may dawal bon xam nga ne yàgg naa respecté couvre-feu waaw leen di message daal mooy ñu respecté mesures yi leen di wax lépp luñ la wax nga def ko luñ la sant nga def ko boo ko lu client bu ñëw nga wax ko defal lii bu ko mënul bu ko yeb waaw. Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur, c'est ici même Sunugal 24